ñu oh, ngi nii direct kër Diène Kairé muy Medina waaw ah, tey jël la carte ñu waajal bés bu mag waaw ah, ma fëggoo ko sama doomu ndey mu Serigne Mbacke Serigne jaar nañ la waaw ñu ngi delloo jaar ñu ngi delloo jaar tey ñu ngi fii ci Dames fu mbër mi di ngemboo fu mbër mi di solo di waajal pour dem stade gis nañ fi kaar bari nag supporter yu bari law sama doomu ndey ñu dugg ci biir rek ñu dugg xuus ñu dugg xuus xool affaire yi fu wane di desal bëtëm tey yaakaar naa du yomb tey moom yaakaar naa du yomb quoi affaire yaa ngi nii gars yi yegsi nañ ay kaar yaa ngi nii gis nga daa mel ni mbër mi mooy waajal génn noonu mbër mi mooy waajal génn waaw xaaral ma dugg jox leen mbër bi laay ban diamond ci Dak Médina éveillé par l'image waaw lamba ngi nii lamba ngi nii la kat tey du yomb du yomb waaw affaire yaa ngi noonu mu ngeen di seet noonu ñu gis noonu ñoom Baba Diaw ci bunt bi ñu ngi noonu mbër maa ngi noonu di génn waaw génn ngoog di génn génn ngi noonu di génn génn ngoog di génn génn ngoog génn ngoog di génn ini nii di dem dem waaw champion baa ngi noonu ngi noonu waaw ngi di ñaanal waaw ngi noonu champion baa ngi doomu Medina bi doomu Boy bi waaw mu am tey bés bu rëy mi ngi nii di génn mi ngi noonu génn ñu gis ma moom ci wàllam noonu gis bi waaw ñaanal ay ngi di ko ñaanal papa jaa ngi nii Boy Kayré ngi nii papa mbër maa ngi nii mi Boy ngi doomu Fass doomu Ndakaaru bi waaw waaw waaw waaw waaw waay waay waay waay lamb waay waay lamb ngi waay Medina ngi nii Medina ñëpp gën nañ tey foo sànni mbatt mu tax ngi seen ginnaaw doomu supporter yaa ngi nii waaw koñ bee ngi nii Baba Diaw ngi noonu Baba nee na gaay day tey waaw Baba ngeen na gaay day waaw waaw mais Baba mais Baba yéen a ngi waaj jëm esat tel ngeen dem tey tey waaw waaw affaire yaa ngi noonu waaw gaay yaa ngi nii waaw ziar nañ gars yi Kay Kat Sëbëre la moom la jël gerte wala jël waaw mbir ñaa ngi nii nag yaa ngi ni tey foo sànni mbàtt mu tax gërëm ñu noonu waaw tey waaw waaw waaw waaw di si boole seen doomu ndey di si boole jën gerte waaw ñu gis seen walaay Matar waaye jàllale leen tawana beere rouge waaw waaw beere beere waaw waaw jën a ngoog jigéen Medina waay ah waay Dak Medina waay ah waay lamb ak

jën a ngi noonu waay di dem équipe baa ngi nii ma jël espoir bi topp jën jën waay waaw waaw waaw waaw waaw waaw jën nga waay ah waay ah waay mel naa ngi lamb ngi lamb ngi ngeen ci fekkoo seen doomu nday law der en direct waaw fii ngeen koy amee fii ngeen koy amee muy tak Medina waaye lii dafa na waay lii dafa na waay waay jën googu combat baa ngi noonu combat baa ngi noonu ngeen topp waaye Medina yëpp génn nañ ñëpp génn nañ ah, waaw waaw gën a ngay dem nag gën a ngi dem ngi dem gën a ngi dem ñu noonu départ di dem gën a ngi dem ñu noonu départ di dem daa teel a dem sax dem esat jën une heure une heure la départ dem esat une heure une heure la départ dem esat alaw mi waaw waaw waaw waaw ah, waay waay beere yaa ngi noonu beere vert lay beere vert combat baa ngi noonu Medina ngi nii tey foo sànni matt mu tax maire yi génn nañ ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ maire yaa ngi noonu xoolal salaamaaleykum yaay booy ziar na leen yéen a yéen a en direct Dak Médina loolu la ñu ñaanal seen doom. waaw. dëgg la xale bu tey la. dëgg la daal ko yàlla defal suñu kër la suñu jël la. dëgg la papa papa loo yónni papa loo ci sànni. waaw. waaw incha allah bu neexee yàlla. waaw ngi noonu. ay dëkkandoom ay bàjjanam ay maamam ñu di ko ñaanal. ah tey du yomb de. ah tey du yomb nag. ah tey mënul yomb. munu lamb nga gisul doy waar tey munu yamu benn naa ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ waaw waaw waaw waaw waay waay waay lamb ngi waay lamb suñu cosaan waay waaw waaw gis nga rek waa ngi ne éponse yar éponse yar xanaa moo daan moo lañ ko ci war a tëdd gënaa man baax baax éponse njël yar sa waa éponse bu lan la nañ nañ ci ngi jël bi di abonné di abonné Malick ni maa ngi si bi waaw waaw waaw waaw waaw ah waay waay waay sama waa ji waaw waaw tànkadi la sama sa sama correspondant bi waaw dina nga waa sëñ Mbacke wala seen plan bi waaw tey du teggi la xam ne yar bi jot na yow yëg ci solo gaay na yar bi jot na yar bi jot na yar bi jot na waay waay waay waay waay Waaw, dañ leen di koj dugaat ci koñ ba xooñ nañ fa bàyyi waaw ñu ngi nii de combat baa ngi noonu combat baa ngi noonu